mais seen bopp ngeen uyu si vous n'êtes pas venu répondre au maire mais seen bopp ngeen uyu si parce que li ñu fiy def yépp njëriñu Ziguinchor la njëriñu chacun et chacune d'entre nous la du loo xam ne dañ koy def pour le profit exclusif de d'un groupe wala d'une personne ma jiital ci remerciement bi également euh, toutes les tout les services déconcentrés yi fi yónnee ndaw ñu ñëw toog parce que ñoom suñu partenaires yu am solo la ci ñuy liggéey tey le receveur payeur municipal mi ngi nii monsieur Diarra di un de nos partenaires stratégiques et qui fait un travail formidable pour Ziguinchor yàlla nañ ñu ko fi bàyyi lu yàgg yàgg yàgg. Euh, monsieur Diop a ngi nii représenté fii le chef du centre des services fiscaux di suñu partenaire bu am solo aussi di ñu accompagner ci liggéey bi ñuy def te dinaa ci dellusi parce que lii lépp c'est bien beau c'est bien beau d'avoir des projet waaye la question centrale et fondamentale mooy ak lan lañ koy financer moo tax suñu partenaires yi am solo ndax dañ ciy liggéey liggéey bu rëy. Et même si le représentant de l'État, en l'occurrence le préfet, n'est pas là et ne s'est pas fait représenter, euh, dinaa ko sànni xeer nag ndax ndax bi ma nekkee maire ba léegi à chaque fois qu'on des activités yu mel nii dinañu invité gouvernance dañu invité préfecture mais je sais pas pourquoi du ñu ñëw te duñu ñu yeble te li ñuy liggéey njëriñu Sénégal la njëriñu Ziguinchor la te am na ci pàcc bu am solo boo xam ne dafa jaar ci loxo état pour mun a yegg si Ziguinchor kon doon na baax doon na rafet ñoom ñu ñëw teew gëwma dina wàññi dara ci seen liggéey wala dina yokk dara ci suñu bos ñun di remercier les collègues maires yi fi teew ma jiital ci sax suñu patron ñun ñëpp muy le président du conseil départemental monsieur Georges Mansali ndax département bi moo ñu féete kaw ñun ñëpp moom ak tous ses collaborateurs son équipe municipale euh, départementale qui les collègues maires avec le maire de Bignona monsieur Bakary jata le maire de Oussouy, monsieur Ousmane Landry Diallo, et le maire de Moulamp, euh, M. Idrissa Senghor. Je remercie également tous nos partenaires, parce que lii ñuy liggéey dañ ci am ay partenaires yoo xam ne la ci ëpp ci ñoom dañoo jàpp ngir yàlla kese daanaka ils n'attendent presque rien dama bëgg waa Ziguinchor xam ni dañoo am chance boo xam ne néew na ay commune am ko mooy dafa am ñoo xam ne dañoo bëgg rek jàpp ci liggéey bi parce que dañoo bëgg ñu réussir quelque chose à Ziguinchor ñi ngi def ay liggéey yoo xam ne bu ko defaloon keneen lañ koy facturer peut-être c'est des dizaines de million ñu koy def di ko mettre au service de Ziguinchor entre les mains de Ziguinchor te duñu réclamer pratiquement rien